ma du ma déférer à la convocation def conférence de presse en fonction de ce qu'il man foofu laa mën a basé wu pour ne complot amul lan la Ousmane Sonko wax non lan la Ousmane Sonko wax ba ma jàpp ni complot amu fa Ousmane Sonko nangu na ni day dem ci salon de beauté bi dem na fa lu dul benn lu dul ñaar xam na fa benn Ousmane Sonko nangu na ni xam na aji Sarr daan na ko maase mhm. ñaar Ousmane Sonko nangu na ni xam na propriétaire tam xam na ruq yeeg ruq ruqaat yi ci salon de beauté bi yépp ma jàpp ni complot kañ bu doon am xanaa nag Ousmane Sonko du nangu di comploter ci boppam parce que lan moo yëkkati tànkam ba mu dem ci salon de beauté bi benn li Pape Malick Ndour wax lan moo war a mën a jaral le président de la république di comploter di ko jaarale ci une jeune fii de vingt ans ñaar xam nga li ma jàpp dans cette histoire mooy que far daf ci xaw a am ba mu ëpp far ci opposition bi rawatina ci waa Pastef te sëñ Cheikh daan na wax ni ànd mënta ñàkk waaye far baaxul ànd ci xel lay lalu waaye far ci xool lay lalu je peux tout comprendre ku nekk mën nga défendre sa leader mais quand même y a des le fait que Sonko assumé ni xam na salon de beauté bi assumé ni daan na fa dem Adji saar di ko maase. assumé ni xam na aji Sarr. pour man pour man pour man waa xaaral ma yeggale pour man. Mhm. cette thèse de complot peut être écartée. 4 mhm. euh, moo ko fa jël ci Papa Ngagne wax nañ ko. Mhm. tudd nañ si neveu sama benn frère Maodo Malick mbay yow muy man muy ñii ñëpp ku ci nekk xam nga li ci. responsabilité familiale. ku nekk am na ci ñoo xam ne ci seen famille mënoo leen gérer. tey bu doon dañoo interpeller un responsable de Benno wala de l'APR directement man mën naa tikke waaye muy man muy yow xam nga ni sunu ay frères sunu ay neveux sunu ay nièces kenn mënu leen contrôler un fait extérieur bu déroulé dal ci kaw Maodo Malick man taxul ma ni complot la bu jóge ci Benno Bokk Yaakaar beneen fait bi ma bëgg a relever mooy que ci enquête lañ nekk. gis nga enquête c'est des faits et que pour dëgg bi mën a jaillir il faut que ñu bàyyi justice def liggéeyam nan lañ ko mën a defee interprétation yii yëpp c'est des interprétations subjectives mm -hmm. le dernier mot revient à la justice et ce que la justice va va faire du man du yow du kenn ci plateau bi ku koy dicter la justice d'accord ce que la justice va faire mm-hmm. c'est s'appuyer sur les faits essayer de voir où se trouve la vérité mhm. li may reprocher l'opposition particulièrement waa Pastef mooy que ils sont en train d'inculper Sonko avant même qu'il ne soit jugé ah parce que si parce que xam nga lu tax ma wax la ko euh, fii ñu nekk nii ñu ngi ci juge d'instruction mhm. papa nga ñëpp xam ñi la procédure pénale c'est trois parties mhm. tey bu ñu waxee PV d'interrogation de flagrant délit tey ñëpp xam nañu c'est un cas de flagrant nekkuñu foofu tey bu ñu waxee sita citation directe xam nañ ni cas de préliminaire la nekkuñu foofu. Mhm. tey bu ñu waxee juge d'instruction. Mhm. xam nañ ni on est en matière criminelle c'est le procureur qui a saisi le juge d'instruction pour une enquête. Mhm. foofu nag bu ñu fa ñëwee on est en train de voir les faits mooy lii nga xam ne juge d'enquête bi yor na ko pour nu ñu koy waxatee élargir l'enquête. ni yaatal li nga xam ni moom la jot. il faut mais aussi lu tax seen xel tey. il faut que mooy par exemple euh, procureur gaaw génne ko ci loxo brigade des recherche yóbbu ko ci juge d'instruction bi sa à dire loolu yëpp nga xam ni moom am na ci. xam nga lu waral loolu ndax loolu warul mën a teyal seen xel aussi. ñoom non non xam nga lu waral loolu Pape dara waru ci teyal xel. Euh, li waral loolu mooy dafa am kenn ku ñu cité koo xam ni dafa am malaanu kiirlaay mhm. muy lever immunité parlementaire malaanu kiirlaay mooy li nga xam ni yoon daf koy muur ñenn ci ay doomam. pour protéger leen aar leen. xanaa loolu ñu mën a def seen liggéey dañ koy yóbbul convocation. xanaa xamuñu ko may ma ma yeggali honorable xanaa xamuñu ko. xam ko bu baax a baax mais waxuñu. ni le, le le député ne peut pas être convoqué xam nga lu ñu wax le député ne peut pas être poursuivi entendu ou arrêté euh, kon xam nga convocation bu amee mhm. convocation bu amee am na fi on a vu Ablaye Baldé bi muy nekk député dañ ko convoqué mu dem kon xam nga loolu c'est un exemple patent. Ablaye Baldé Ablaye Baldé nañ ko dans le cadre de l' enrichissement illicite. en tant que député il a déféré à la convocation ñëpp gis nañ image yi. à deux reprises. je suis désolé Amadou laisse-moi continuer. d' pas parce que on est député que waruñ la convoquer nga ni doo dem li ma d' accord mooy que tu es député. muy juge muy procureur kenn mënu la ci poursuivre entendre la wala arrêter la loolu la yoon wax. maintenant nag libre à toi. d'y aller ou de ne pas y aller moom il a préféré ne pas y la procédure mooy que juge d'instruction bi am na blocage delloo na dossier bi procureur. procureur mënuñu saisir jaar na ci ministre de la justice pour saisir l'Assemblée nationale. fi ngay daaneele mooy bu fekkee justice am na sañ-sañu convoqué ko. pourquoi demuñu jusqu'au bout. ci convocation non non non non attends mm-hmm. Mm-hmm. pourquoi demuñu bu fekkente ni seen bu fekkente ni am nañu sañ-sañu convoqué ko pourquoi demuñu jusqu'au bout Pape sa Pape Ngagne. waaw justice am na droit convoquer. mais xam nga lu mu amul droit. forcé c'est bon ok il est libre. d'accord d'y aller ou de ne pas aller. il a choisi de ne pas y aller. merci honorable merci beaucoup.